Nous l'illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national. Quatre parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les quatre axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre Baba propose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. dafa war leer lépp leer ci askan wi maanaam jub jubbal ak jubbante loolu mooy indi jàmm ak dal ci noonu itam lañuy gën a dooleel lëkkaloo gi am ci suñ diggante ak yeneeni réewu Afrique yi ñu mën a àndandoo liggéey ngir mën a yegg ci mébét yi ñu bokk Et le solitron du baobab représente un aménagement développement durable. Aménagement et mooy fexe ñu mën a séddale tabax yi ak service yi ci diwaan yépp su ko defee gox bu nekk mën a yokk ci anam wu dëppoo ak liñ bëbët dafay ànd ak tabax dëkk yu méngoo ak sunuy bëgg-bëggu ëllëg ci jamono jooju faawu ñu aar xeewali jaww ji ngir ñu bañ a jeex boole ci defar dëkk yu mën a dëppoo ak bëgg-bëggu tey te bañ a sànk ëllëg Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. capital humain de qualité et équité sociale maanaam gën a sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi ñu gën a yamale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkuteg réew mi. Et les fruits enfin qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. Économie compétitive. li ñu jublu mooy Sénégal bu moom boppam jub te am naataange ànd ak koom-koom gu am taxawaay maanaam sos koom-koom gu mën a joante ak àddina si loolu dina gëna dooleel barabi yokkute yi gëna yombal liggéey yi gën yombal dundinu askan wi su réew mi jàppale secteur privé bi mu am doole ba noppi fexe moom boppam ci wàllu koom-koom loolu dina tax alal ji am njariñ ci askan wi ci noonu lañuy gëna yombalee ay liggéey ak ay gis-gis yu bees ci dëkk bi.

c'est des moteurs de croissance en pleine expansion, c'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en trois étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Cheikh Moudou directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et la coopération, La vision 2050 par M. Victor Ndiaye du cabinet Performance, la déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. Et on souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour, pour que le maximum de Sénégalais puissent euh, comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention.